Pape Sarr ñu di la siyaar. waaw fay naa la Thier maa ngi lay nuyu ñëpp di ñu fi fekk ñëpp suñu papa yi suñu rakk yi mbëri fi fekk waaw di rafetlu seen liggéey nag wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla leen yàlla defal réussir bu mag xam nga di ñaan seen site yëpp nekk tele yu mag a mag a mag. waaw wax dëgg yàlla gis nañu seen liggéey bu baax. Euh, première chose li ñu bëgg xam mooy woote bi lan moo ko waral à 100 pour woote bi woote bi yàgg nañ ko woote pour ñu gën a defaraat suñu Pikine rek xam nga ñuy xàccandoo di dóorandoo loolu moo gën a indi woote bi xam nga ñu bañati xeebal benn mbër du ñu tegg fi mbër yu mag yi kese ñuy xool mbër yu ndaw yi tamit ni ñuy taxawee mbër yu mag yi ñu koy taxawee mbër yu ndaw yi mbër bu si amati combat écurie bu nekk fàq ñëw ci fekk la sa écurie ñëw jàppale la contact jàppale la ci entraînement dégg nga ñu indi ñu dindi fi affaire féetewoo féetewoo ñu jël lépp def ko benn li ma doon xeex yàlla dimbali na ma tey yàlla defal na ma ko tey du dëgg muy combat Ziza ak Boston ak ba ci ba mbaru cent mille ba mbëru cent millions ku si am combat ñëpp def benn ful ñoo fekk la sa écrit jàppale la contact jàppale la si côté bu nekk mhm. loolu muy lu am solo ñu gis Pikine nekk ci ay combat yu am solo rawatina diggante Sokh Franc mhm. euh, Gris Bordeaux kii lu mu tuddati Boy Niang Balla Gaye 2 fa lañ ci comme nii rek. waaw suñ ko commencé tey dinañu xool lan lan lañ si war a liggéeyee. li si njëkk mooy combat soq bi. soq franc Pokola tamit am na grand combat. moom it waaw. Pokola tamit am na combat bu mag moom tamit. dañ si jubloog ñeneen ñoom ambourage ak booy am fii combat dañoo bari muy ëmma seen ak ñoom ñëpp waaw si la ñuy si combat sokk bi sax moo gën a indi lii. dégg ngeen Franc yi mu la ñu waa dégg nañ ko Franc suma rakk la nit ku baax la. Mhm. wax dëgg yàlla aw ma dara lu ko tontu parce que nit ku baax la. Mhm. làmb si làmb rek lay wax. Mhm. moo tax aw ma dara lu ma ko si teg mooy mu entraîné préparé ñun ñuy ñu indi ñu boot suñu rakk di ñaan yàlla may ñu dem mais amul benn lenn lu ñagas wala lu ñaaw lu may wax Franc parce que suma rakk la. parce que Alain moo ñu boole. Alain mbokku Franc la. Alain suma xarit la ku képp ku xam Alain xam ni dañoo bokk ci rent DKR. kon damay moytu bu baax li may wax si moom. Mm-hmm. waaw nee na xaw da koy tas. non loolu dama ko ci woo téléphone moom. wax ko si. Mm-hmm. ne ko waroon nga wax ci cadre soq saa nga ne da nga koy tas. voilà mm-hmm. tuuti tuuti na pour tas ko. waaw tuuti na pour tas ko parce que tey euh, Tyson 2 tey moo ko may fii mu egg nii parce que Tyson 2 mënul ju mënul nekk ci dix dix sept victoire ñaari défaite ñetti défaite xaw ma ñëw jël ko yaa ngi may dégg est-ce xam nga soq draw ko fuuf ci làmb victoire yi soq am Franc amu ko du dëgg du kon du moom mooy tax suñu pikin. mais nee na nañ fexe ba nañ am ngor li ñuy ngémboo li nga xam ne mooy euh, soq di ko indi. Hmm. nañ am jom bu jour baax. nañ fexe dëggal seen bopp comme bu daanee soq ñoom ñu ñu jéngu ñëw. du question daan soq rek daje suñu mbëri yi. parce que eggagul ak ñoom bokkuñu sax. déedéet eggagul niveau boobu. Hmm. eggagul sax ci niveau boobu noonu. Hmm. déedéet. yow xam nga ni soog Franc Ama Baldé loolu yenul maanaa. ñu ngi wax Ama Balde Modou Lo ngay muy jékki-jékki naan nañu am ngor ñu ngi naan euh, Eumeu Sène Balla Gaye moom bu wax loolu. na bëri na bëri Sokh contrat am ak na fexe ba mu génn ci ba pare. mu doog a xool lim ciy def am na yeneen boo yoo xamante ne ñu ngi fii ay moromam lañu ñu ngi fii Pikine. ñoom Ndiaga caam ñoom ñëpp ñu ngi fii. bis bu ko Sokh daanee mu ñëw bëri Pakola. waaw tey moom dafa dañoo dem ñu géewal ko Pakola Adrien Senghor par point la daanee Pakola. ku munul daan Pakola di nga daan Sokh. loolu la 19 lay rek mais dégg nga Ndiouga Dia li mu ci wax. non Ndiouga man du ma ko si ma ko tontu. Hmm. si loolu xam lan moo lan moo tax bu nekkoon sportif la. wala mbër la sax ma tontu ko. dañ ko fi géewal feeg bala Beye numéro un bala Beye numéro un du ma ko. daan ko na ma génneel suñu làmb na génnee benn archive bu Ndiouga jaw waree ci kaw mbër. Hmm. amul dégg nga man de wax dëgg yàlla xamee wu ma ko ci làmb ko laa ko xamee. luy Negresco. moom xam na fuy ko <laughs> mooy ex léegi moo nekk police Thiaroye man fa laa ko xamee mais xamee wu ma ko ci làmb. nekk na ci biir làmb marqué bi ko Balla Beye numéro un dum la bàyyi lamb c'est que problème mooy ay Balla Diouf mun nañu ëmb sporant ma tiit ñooñu ay sportif lañu def nañu dara ci làmb. Hmm. mais du Ndiogou Dia mooy indi mbër may tiit. Hmm. Franc mun na daan Sokh. kon wax kon ay waxu kii la non waxu moo solul tubéy. Hmm. waxuñ Ndiouga Dia solul tubay. <laughs> waaw mais li am amu ci benn droit parce que daa deful dara lamb ah, kon làmb kon ku deful dara war a wax. deful da war na ci wax mais moom daa deful dara ci làmb. Ah. c'est que problème mooy suy indi mbër man dama sama xel day dal parce que barki Seydina Mohamed moo gën a cuune parcelle. kon moom su indee Franc sa xel sama xel day dal. Ah. su ko ñoom Balla Diouf indee wala doomam boobu sax. nga xam ne def na dara ci làmb. am na quatre défaites benn victoire <laughs> doomam boobu noonu serpent noir si quatre défaites la toog ak benn victoire la am nii. ah kooku bu indee mbër sax mun sama xel mun na dal dégg nga waaw seetaan naa waxam wax ji man rafetlu wu ma ko lu dëgg moom parcelle la dëkk ñun pikin lañ dëkk mais sooy jël ñoom mbalit bu ñu am rek bëgguñu koo soddi sànni te ñun loolu duñ ko nangu non non nan la ñu yabee nan la ñu yabee voilà waaw waaw Ama Baldé Papa Sow Fallaye 2 Modou ah. Zos Ama Balde. ah. Boy Niang Zos. waaw Boy Niang Garga Zos. waaw ah dégg nga Ama Ama Balde Zos 2 Zos 3. Ama kii mooy booy booy boobu Mbapat. Fallaye 2 dem dañ ko fa yóbbu parcelle muy tëggkat boobu tëggkatu sabar la woon mu daan mudloo. du woon mbër da doon tëgg sabar. bi mu koy daan katu sabar la Modou Lo nekk mbër Falaye 2 toog ci kawam. mu daan am Ama Baldé mbapat mais Falaye 2 dakoo koo daan. Laasana daan ko Pikine. mais wax ji wax ji fan ngeen toll ci la 19. pare nañu. ndax Franc mu ne moo leen ëpp doole dàq leen xeex ëpp leen bëre bu leen may ay secondes arbitre la ñëw mu tàkk seen kaw. xam nga lan la ñuy tiit ci Franc buuxante bi muy def. buuxante rek. Ah. la Franc man <laughs> loolu laay tiit ci Franc buuxante boobu mu génn saako yi juróomi yoon ñu yëkkati loxom non man kenn da koo waxati. Hmm. fa ndaanaan la mais dama leen sama xel bu muy dal naa ñëw rek. Franc dugg ci biir rek ma gis ci njuga sama xel day dal. waaw. njuga dina bàyyi wax. dina bàyyi wax waaw waaw boo leen jógee ci le 19 yéen a ngi préparé diggante Boy Niang Balla Gaye 2 muy revanche Boy Niang ñu ne dafa am problème ci VIP yi def ñaari euh, sortie ci VIP yi perte ko jëm troisième ci VIP bi muy Balla Gaye 2 foo ci combat waaw ñu ngi ci ñu ngi préparé bu baax a baax a baax <laughs> billaay damay reetaat parce que euh, boy euh, ko <laughs> xam mu dee sax ku gënal mais ñun ñu ñu ngi pare waaw booy bi daal wax dëgg yàlla mu ngi ci rukkam man gëj naa ko gis. mais mu fonk na combat bi xam nga ñuy ñaan yàlla yàlla may ñun ndam waaw. yàlla Pikine li ko wër ak Boña. waaw daf mel combat moo a intéressé seen carrière seen bu baax a baax. waaw bu baax. waaw parce que champion la ñuy bëreel. Mhm. kuy bëreeg moom doo nelaw say mbokk duñu nelaw. Mhm. kon nag ñun dañoo war a fonk combat boobu noonu. Mhm. parce que tey ba Balla Gaye wax dëgg yàlla day neexal lamb. te xale bu saf sap lay am. combat bi du yomb de. waaw du yomb ci ñun du yomb ci moom. waaw dama dégg micro dégal mu ne. Balla Gaye moo gën a neex daan ci ko déggal yow. non non non demal nga déggaat ko. non non non non non non non si toll non non. non non non non non man man buntu kër man golf buntu kër Balla Gaye xaw ma nu mel. Ah. barke rasulullahi mm-hmm. moom mooy mu ngi may déglu buntu këru àndaw laa Andaw Ndiaye mais buntu kër Balla Gaye 2 Pape Sarr xamul nu mu féete ñi xam ñi mu fu mu féete Pape bi bokku ci bi bokku ci Pape Sarr bu meloon noonu sama yi li mu am fii Pikine du ko am de mais noo déggee gars yi ñu ci VIP non mooy lan <laughs> waaw yow télé lan télé boo xamante ne yow toogagoo si kawam problème mooy télé bi yëpp dañ toog ci kaw booy ñaar loolu mooy wax ji mm-hmm. toog kenn daanu guti ba toog ci kawam nañu toog ci kawam loolu mooy wax ji ndax mm-hmm. ndax combat boobu noonu ñuy xaar Ama Baldé comme cent pour cent bi ngeen wax ñëw soutenir ki nga xam te mooy booy ñaar mais Ama Baldé Pikine la dëkk Mm-hmm. Pikine la dëkk bu neutré sax dañ koy comprendre parce que mbokku Balla Gaye la. non Ama Balde Pikine la faral. waaw Ama Balde bu Balla Gaye di bëre bu dul mbëru Pikine. Balla gay lay foral mm-hmm. mais Ama Balde doomu Pikine la. no loolu moo wax dëgg yàlla des na maa leer parce que doomu Pikine la. Mm. même bu neutré sax doomu Pikine la. Mm. dégg loolu moom wax dëgg yàlla. <laughs> loolu moom da ngeen di dem ba ci am xabal de ndeyu mbile bi ngeen dégg ko. Hmm. su ma ci waxee loolu xam nga surtout commentaire yi temps yi. yaa ngi may saf ñii dañ lay saaga fii di wax loo xamante ne wax dëgg yàlla fi mu toll nii damay defaraat samay wax bu baax a baax a baax. Hmm. waaw. waaw waaw ñu ci kaw.